def wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax xam naa ni jërëjëf la ñëw sa kër ak yeneen ñu ngi lay ziar delloo ziar sa relation ak euh, Gabriel euh, Bijou Ngoné benn ak Gabriel <laughs> doo changé non foog ma ñëw ci xew mi xam nga man ba ma génnee ren balaa maa génn déwén mm-hmm. ah fa fallait ma ñëw parce que Bijou sama xarit la. Ah. defe naa ne néew na bari na kàddu yi ñuy wax ne Gabriel moo ko wax mais bariwul kër yi ñuy wax ne Gabriel daf fay dem bariwul ñaari kër laay dem ci Sénégal fa laay dem donc kër Bijou ci la bokk. donc cër bi bu ñu ko ko joxee dama ko war a bokk ak moom ndax nit ku ne bësam la am donc bës bi suñu bës la euh, Bijou moom xam nga dafa jël dofi ci réew mi yëpp wuuf leen. ñoom Gabriel ak ñoom Paulus ñëpp mu njaboote leen donc ñu nangu topp ci ginnaaw mooy yaayu ñëpp bi suñu yaay donc euh, am mbégte ñëw fii feete euh, mariage bi di leen euh, souhaiter heureux ménage et puis féexal xol yi xam nga sañse wane ne ñun tamit ci réew mi lañ bokk nga jong ma da nga génne nii fu baax ndax coow li fu mu toll yaa ko téye non nag yow tamit ñun ci réew mi lañ bokk gars yi dañuy nangu par force la dañuy nangu par force bu Viviane bi ah goro dañuy nangu par force la nga ko wax de goro goro nga ko wax kii sama goro la kii dama koo bëgg du kii moom may may jëkkër mhm. yàlla yàlla jéeri la may may alaaj Pape Cheikh ñu ne Gabriel Kat Diallo moom moom war a may jëkkër donc comme mën na xoole naa ba Pawlish takki jabar ñu ma wax dëgg yàlla goro ci yow la Viviane de la may Pape Cheikh léegi goro daal defal lépp Viviane yaay mayee Gabriel de maa koy maye incha allah euh, donc di kontaan rek encore di nuyu Gabriel euh, moom sama goro ah, ak bijou ñi ma fi fekk ñëpp leen wax ne bés bi ma fi ñëw c'est normal Pawlish suñu doom la xam nga euh, macha allah bi ma gisee soxnaam dama kontaan sa turandoo muy sama turandoo soxna Diarra dama kontaan ñoom ñëpp ay xale lañu nekk ci waar bi xam nga di ko béy c'est dañuy dañuy wax nit ñi di reetaan mais loo gis liggéey la donc euh, tey man samay sama bis dañ cey ñëw taxawal taxawal ma fa taxaw bu am solo def promo bu am solo ànd ci respect nag donc euh, ma kontaan ak tey rek ñëw fii ci mariage bi voilà. Sénégalais li ñuy laajte mooy Viviane kañ lan lay xaar ndax ni nga jongoma ni internet ñu ngi laaj Viviane fa jongoma rajo ni lan ngay xaar. lan lay xaar pour. pour mariage pour mariage ah mais est-ce que marié sax ba pare. Madou est-ce que marié wu ma maa koy topp damay ànd ak laay ñëw topp ko. yaay wax loolu da topp kaa da ngi lay souhaiter bonne soirée. mais merci beaucoup merci à vous.